Ah, ah, ah maa ci jàmm di sant yàlla bu baax a baax. ah ma sukkur ayca ayca ayca. waaw. il faut il faut ñu leeral li yëpp maanaam hasard la. Euh, voilà. Euh, surprise ngeen ma def. Euh, ku ne xam na ne dañ ma invité woon plateau TFM. falaa nekkoon ci feet bi ne ah euh, ngeen ñëw par surprise man dama jékki-jékki rek Albourakh ne ma wàccal am nga ay gan. Oulita it euh, depuis avant-hier la ma woo ne ma diva dama bëgg indi xaalis mais aw ma jot parce que promotion bi la xam nga. sànq mu ne ma maa ngi ñëw indi xaalis parce que bëgguma ko lekk ndax fan yëpp diva maa ngi naan la damay ñëw jël si bëgguma ko lekk ne ko waa ñëw indi xaalis bi engagé moom nag sama doom la moom ci kër gi la dëkk xam nga ousin ñi ñëpp parce ñoom fi la ñu nekk moom ñoom fi la ñu nekk ah, ay doom lañ ay lépp lañ di wan ne rek surprise bi ngeen def chaque jour fii nii lay demee. Uh-huh. waaw Uli dafa ànd ak papaam ñëw jënd si chambre à coucher fekk leen fi engagé mii nag fii këram la Ousin aussi pareil ñooy ànd di ambiance di def suñu yëf di fëgg polentri yi naan dëkkandoo yi <laughs> alors engagé ñu ngi lay nuyu di maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay bu baax a fekk ay say xarit mën nañu wax ni ñoom ñaar ñoo ngi ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi nii nekk ay jàmbaar tey mu nekk huit mars bokk sànq maa ngi koy wax bokk nañ fexe nañ ba fu mu toll nii réew mi ñu xàmmee leen fi yow nga nekk seen góor lan nga siy wax waaw damay am contentement ak mbégte rek di nuyuwaat sénégalais yi vraiment di rafetlu act bi nice na trop wax dëgg yàlla parce que diva moom diva diva diva ñëpp la waaye diva diva nit ñi la ñi nga xam ne tey jii ni am na lu ñu bëgg diva ku ko jàpp rek li tax nga koy jàpp mooy jikkoom bu set xolam bu la ak bëgg doomu aadamaam man nag dama naan toujours dama naan sens la ma xamanteeg diva saaliw parce que su ma meloon n'importe kii tey du diva du ma mel moom nii du fu ma riiree damay damay am live dem liggéeyal nit guddi jot ba dese lu dul bi ma ñëw wàcc place su Diva te boobu ba tey yàgg na te gis ci moom beneen kanam barki Xalifa Malick ñun ay ay ay xale lañ waaye kër gu mag lañ juddoo fa la yaroo ñun bët bu ñu waay xoolee xam nañ ko barki Xalifa Malick li may waxal Diva dafa nekk ci moom Diva dafa baax Diva dafa Diva Diva dafa teey dafa dal ak lu mënti am ci àddina Diva ku dal la Diva nit ku ñu yar la léeg-léeg dan mën na la may xaalis sax nga toog bés dajeeg moom di ko ko fàttali mu naan la kañ la woon maanaam lu mu joxe pare na ci man lu may waxal nit rek la fa fekk mu nekk ci moom parce que jamono dafa changé mais humble gi ma gis ci Diva discret bi ma gis ci Diva ak xam lu mu bëgg Diva du waxantu Diva ñun ñoo naan ko taalal sa live ñu live ñu ambiance waxtaan moom liggéeyam daf ko daf ko tënk macha allah yàlla bu ko ca dugg mais moom yàlla dimbali na ko moom bu taalee live bi peut-être pour ambiance man ma sonal ko mais moom marqué na empreinte am ci réew mi ba bu toogee sans mu taal live dina gis liggéey nit ñi dinañ ko bëgg ay ak ak lu nit ñi xam ak lu nit ñi xamul Diva boroomi tur bu nekk da koy woo bëgg liggéey ak moom loolu lan moo ko waral dal bi nekk ci moom jom ji nekk ci moom te nag jamono dafa yàqu ñu nekk ci monde réseaux sociaux réseaux bi lu nekk a ngi ci kon tey bu yàlla defee moom mu nekk nit koo xam ne li nit ñi di am am na ko teranga bi nit yàlla di teral nit ñi teral na ko mu doon nit ku diiñ malgré teranga gi ko yàlla teral yëpp taxul mu gis succès taxul mu ñàkk a xam waxin Diva xam na waxin macha allah loolu rek moo tax tey bi ma woy dama demoon xadara ba dama demaat suñu kër si meeku changé ne damay ñëw lu mu xat-xat damay ñëw parce que diva sama nit la lu ko jar rek moo ko jar ulita mi tamit même chose xam nga dañ naan yàlla mooy xool ñi yam jikko mu boole leen keroog bi muy def inauguration showroom bi moom moom diva dañuy ànd ci ay nitam ñu ànd ci ulita ulita ba ba nii may waxe ba dugg nañ ba génn ulita siggiwul xool ñu bët ak yar gi nekk ci moom tey gi nekk ci moom moo tax ma ne yàlla day xool ñi ñi yem rek mu daal mu daal di leen boole ulita nit ku yaru la nit ku baax la te li may ñaan yàlla mooy yàlla sàmm leen làq leen fu yàq eggul yàlla musal leen ci saytaane waaw kenn ku ci nekk yéene bi nga am ci sa morom nga defal ko ko tey nag dina gis engagé sérieux mais euh, euh, yëf yee ko laaj mën naa siif nag bu ne bu siif loo waay non dama kontaan dama kontaan parce que euh, bu ñu nee sargal jigéen man tey moom laa def sati Diva Saliou mi laa def statut yàlla xam na ko moom laa def statut parce que lépp lu ñuy wër ci jigéen mi ngi ci moom Diva am na jom xaarul dara ci kenn liggéey rek Diva xeebul dara liggéey liggéey kuy liggéey ba ba ba yàlla dimbali la nga woo ay jeunes nga ne engagé wutal ma tant de jeunes bu ñu ñëwee ma jox leen liggéey ñu liggéey kon moom bokk na ci developpement réew mi dara taxul ma koy wax du alal ju mu may ma parce que Diva lu mu mën a may su ma amal ko sama bopp. Diva li tax ma jàpp ko xol bu rafet moo tax ma jàpp ko ak ak parce que nit ñi nag mën nañ la gis rek benn jour boole la ci seen boobu def ay affaire mais dañuy foo nit ñu foo ñi. moo tax man damay daw lu bari bari. dañuy audio wala. Hmm? dañuy ah, lu ne am na ci réew mi. réew mi lu ne am na fi mais malgré li xew lépp ci réew mi xam nga la moo la ci dimbali wàññi fréquentation. bañ a jël suñu vie yëpp exposé ko ci réseaux sociaux bi parce que noonu yi nekk ci réew mi wax katulu ñaaw yi nekk ci réew mi ku leen topp bu yàggee da manqué mën nga def des fois di nga topp noonu ba dara day xew sax ñu laaj la ci nga wax boo waxee rek ñëpp dañ lay dañuy dañuy jàpp seen gémmiñ maanaam sa communication day des. alors que ku jàng nga ku tee nga sa communication lu tax muy des parce que bi ngay wax sa xel maa ngi ci sa noon yi ñëw ci benn bërëb boo xam ne loolu yoonam nekk fa woon nga wax ko fa. loolu yëpp lan moo la ko teg c'est-à-dire bàyyi xel noonu yi noonu yi ci réew mi waxkatu lu ñaaw ci réew mi dañoo bari ku leen bàyyi xel bu yàggee yow yaay manqué. foo waxee nit ñi dañuy jàpp seen gémmiñ donc nag li ñu ci dimbali mooy wàññi suñu fréquentation bañ a jël suñu fii exposé ko ci réseaux sociaux bi xoolaat bu baax a baax ñu ñu àndal nawle mooy sa nawle mooy ki nga yemal jikko tolloog moom ngor kooku mooy sa nawle mais nit ki nekkul da ngay siiw rek képp koo gis rek nga gis dugg ci moom ñun lu ñu dal ñun ñoo ko teg suñu bopp ñun ñoo siiw ñun sunu famille lu ñu dégg rek ñun ñoo leen ko teg ñun ñoo siiw ñun la nit ñi xam ñun ñooy toog ci réseaux war a liggéey di dugg ci ay mu jàmbur ñun ñooy toog ci réseaux sociaux bu war a liggéey di créer ay loolu yëpp nag buñ ci muslu woon xëy amaana tey fi fi fi yëf yi toll nii du fa toll mais li may ñaan rek mooy yal nañu yàlla musal ci seytaane waaw parce que nag doomu aadama sénégalais bëggul ko avancé bu la succès dabee rek foog ñu wutal la ay affaire gor say tànk waaw alors euh, damay ñëw dugg tuuti si li nga xam ne ni moom mooy def coow si si si dëkk bi fu mu toll nii mooy ay audio yi nga xam ne ni ñoo ngi génn si diggante euh, ay Aïssatou Diop Fall ay Farba alors audio yi ñaaw yooyu noonu ba nga la def non man li ngay wax nii sax dégguma ko barke Khalifa Malick dégguma ko sax dégguma ko sax te même bu fekkee ñu ma man lépp man man man lu ma war a wax ak nit ki du ci réseaux sociaux bi laa koy waxee bu doon sama mag bu ma bokkal ndey ak baay moo am problème ci réseaux bi li ma koy conseil man ak moom la nekkul ci réseaux sociaux rawatina coowal jigéen man coowal jigéen moom même bu dee suma kër famille sax coowal jigéen sama yoon nekku ci man dama am gàcce man coowal jigéen am ñu dégg ma dégg sama tur wala ñu dégg ma ci dama ko am gàcce moo tax damay mot ma bari naa comédie bari naa lu nekk mais kenn du ma yab dama dama naqari deret mooy li may wax chaque jour rek xam nga xam nga lal la mooy baadoolo gu sew gi alal mu jee dab baadoolo gu sew gi alal mu jee dab ñoom ñooñu sonal waaw baadoolu gu sew gi alal jee dab ñoo ñu sonal ñoo xamul seeni communication fii yàlla yàgg man d'accord ma xulóog nit ki rek mbirum mbàcc taxoo ci oor yi dawaloo ci oto yi bari na ñoo ñu yàgg a takk ci oor dawal ci oto te kenn déggu leen àdduna lu ci ne ku ci nekk ak boo amee alal li ci sa priorité comprendre nga kii bu amee alal lee moo ko ci ñor kii bu amee alal lee moo ko ci ñor ba pare nag li ma wax sànq rek sa question bi mooy li ma wax sànq ñu wàññi fréquentation yi man du ma d'accord mukk ay nit daan ànd créer seen coalition di ma def ay affaire di àndoo dem ñu jékki-jékki duuloo seen biir kenn rocceeku ñëw bëgg maa tax xarit du ma ko nangu pour lan pour lan du ko def mukk ci àddina billaay wallaay nit ñi waaye pour lan nit ñi ñun ñun suñu ñooy suñu seytaane bopp ñooy suñu foofu bopp man du ma ànd ak ki mukk mu leer ma ne man ak moom suñu jikkoo yamuñu wala li ma ko yéene yéenu ma ko may forcé ànd bi di ko rafetal du ma ko def du ma ko def léegi jamono ji ko ëpp jàmm mooy ki nga xam ne daa maandu loolu rek ànd foo bi loolu rek ko waral mooy tey tey ñaar ñoo ànd suba kee jóge fee jubóog kee ànd xuloo kële lo comprendre nga loolooy waral audio looloo war a xamante parce que damay ànd ak yow man ak yow ñu nekk ay xarit moo wax la sama sa kër yëpp ñu ànd duggante di génn tey bu ñu duurawee loo wax nit ñi dañ koy gëm moom ci foiru Dabaye waaw faaru dabaay bi amoon Cissesse euh, fa la ñu xamante ñu dend benn stand ma nekk sama stand di jaay ay tissus moom mu yor stand di jaay ay vaisselle ay vaisselle ay bool yooyu noonu barki Xalifa Maalik xoola man damay taal live man damay taal wax ba xotteeku doog a jaay Diva chaque jour ak ay nitu nitu valeur yuy ñëw wër ko wër si ko ci faar ba gis ko ne ko dañuy damay jënd ci yow maanaam moom dafa mel ni amoon ay